tamit at pédale booy président moo wax jëf pour bëgg ñu dimbale nit ñi moom mu def la muy def nit ñi nag kon kenn ko ci ne war nga yow def dara wan ne ko li ngay def bëgg nañ ko jàpp nañ ko moo tax ay Aïdara Sylla maire bi woo conseil yi ne dama bëgg ñu wut ci commune bi lu tollook cinquante quatre tonnes ñu engagé ko jox ko nit ñi daal jël moom it trente quelque tonnes wala lu neuf millions ci poosu boppam moo dolli ko ci ne nañ ko séddale nit ñi ne boo mënoon lépp sans poos maa koy def waaye nag mbir la moo xam ne ñëpp a ko bokk kon loolu moo tax nu woote ji tey pour wax nit ñi wan nit ñi ne lii moom la commune bi def ci turu Aydara ndax Aydara mooy commune bi ndax mooy maire bi kon moo ko santaane leen lii moo ko def ci poosam wax dëgg yàlla di sant bu baax nag sant gi li ma leen wax mooy ci borom réew bi leen koy njëkkee ndax xay na boo defee xalaat wax ko nit ñi dégg ko kenn ku ne jóg di la ca roy kon warees na la caa sant waaye xam nga li ñu doon joxe ñoom daa amoon fu ñu doon joxoñ ndax dañoo bourse familiale lañ joxoñ te ñëpp ñoo daj ci bourse familiale nu xool ne am na ñoo xam ne war nañoo am moo tax ay dara xalaat xalaat bi mu xalaat ndax bu nu xoolee ñun suñ commune ménages yi presque ñuy cent quatre vingt mille neuf cent quatre vingt seize ménages xam nga loolu du caaxaan. cinq cent la ak leneen mu sax sept cent lépp daal di ko waaye nag ku ñuy dimbale it yow war ngaa dimbale sa bopp moo tax nu xalaat loolu ay dara xalaat loolu wax ko conseil yëpp d'accord ci ne nun li nga ci yéene lan ci yéene ba tax nu jàpp loolu def ko moo tax ñu indi loolu bëggoon nañ lépp loolu waaye noonu nag l'ensemble la ñëppay am l'ensemble menaces yi bu amul amul tànnuñu benn dañ ne ñëpp ñëpp nañu am na ñëpp am tas ñëpp ñëppay am village yi kër gu da nga am famille bu ne da nga am ñëppay am dañ koy tas kenn ku ne nu sa kër toll wala nu sa dëkk toll na ngay waaw dañ koy xool ci recensement administratif bi ñu defoon kenn ku ne ñuy joxe la noonu 64 villages 64 villages yëppay am incha allah te kenn ku ne yaakaar naa ne la am dana jaadu jaadu boobu dana la mën dund ay weer weer wala lu ko kon loolu loolu lañ def di sant it population yi di sant conseil di sant ñëpp ndax kenn ko ci nekk danga nga jàpp ne yaa ko def di santit it mii ak at am ndax bay fi xeweek léegi dama leen di wax ne leen yéen mun leen liggéey mooy muy ñëw fu yàq suñu nag bu dégg bëccëg ñu ngi ci taxaw di dox di wax lu ne ñu di koy daj pour yëf fi réussir ndax malade bi moo jiitu ci la njëkk di dox lu baree bari ànd ak commandant brigade bi ak ma yi sax damay wax naa leen ne leen wax dëgg yàlla jàmbaar ngeen ndax wata bi ñu yor wata bi beesut waaye guddeeg bëccëg dëkki àlli suuf yi foo taxaw taxaw wëttu ñu ñu freiné sa kanam loolu loolu yombul malgré nun suñ commune bi noo ngi neuf communes yoo xam ne ñoo na frontière o boo xam ne benn benn mën ngaa jógee xam nga sécurité ko yombul mën ngaa jógee ci commune bi ñëw ci ba muy neuf communes waaye teewul daal kenn ko ne ngay jàpp ne sab dëkk rek la sax na may ñëw kon loolu te ñu def fa guddi boo xam ne wax dëgg yàlla wata bi doy na waar waaye téewut malgré lépp nelawuñ guddi nelawuñ bëccëg damay wax nit ñi nag nañ leen jàppale ndax nag loolu daa ko ci boolewaale awaaje bi ndax feebar bi métti kenn ku ne na jàpp ne sandarma nga loo gis koo gis mu koy sabote bul ne sama danoo bokk ak man nang na nga ko danoo si waaw na nga ko danoo si ndax bu ñëwee sa kaw kat da nga xam ne métti na kon nag léegi loolu daal laa noonu daa ko ci wax xanaa woo ndaw mu àggale wax yi muy secrétaire municipal bi waaye ay dara daal moom li mu bëggoon mooy su sañoon doucement yëpp kenn ku ne mu yor la waaye nag wane na ci yéenam ànd cee conseil ak chef de village yi ak groupement yi ak chef religieux yi ñëpp ñu ànd ci li muy def di sant góor di sant jigéen di sant mag di sant ndaw di ñaan yàlla feebar bii mu jeex takk ndax bu jeexut kat liggéey du am waaw doo koy ñaan jërëjëf di am mbégte ci teewaay bi nu fi teew tey euh, ci li nga xam ne maire génnee na ko ci budget def ko ak li nga xam ne mooy président commune bi def na ko muy ay Aïdara la muy loo xam ne kenn ku ci nekk amoon nga yéene def li nga xam ne mooy liwaa commune bi soxla lépp ñu def ko ci ngir feebar bi nga xam ne mooy bi nekk ci réew mi ah mu doon loo xam ne nun village yi fi nekk day sant nañ ci bu baax ndax gis nañ ne budul dara yit nit ki bu xalaatee yëg rek loolu doy na sëkku jant andi nañ ci daara yi lépp loo xam ne moom la rax soo joxe li nga xam ne mooy niñ ko war a defee ni ñu koy def ba mat sëkk yëkkatiwaat nañ lu mel lu ab dund ti ko joxe ko ci loo xam ne ñu ngi koy jagleel population bi kon loolu noonu amu ci lu di sant te di ko rafetlu tey yàlla mi nga xam ne moo fi indi feebar yàlla na ko jeexal ci jàmm di ñaan it ñi fi toog ñëpp yàlla na ko bokk fekk teewe déwén te déwén dàq ci noonu loolu daal laa ci am ci lu ma ci wax sant nañ nu village yëpp daal gis nañ ne it mbir mi tegu na ci aw yoon aw yoon lu suñ fi am dara loo xam ne def nañ ko tegul ci yoon te xam na ne loolu noonu lay demee ndax ñi fi nekk ñëpp bu ñu sañoon fab seen yëf sax dugal ci kon kooku du téyel kenn dara asalaamaaleykum wa rahmatullah gan ñi fi teew di nuyu sous-préfet nuyu monsieur le maire ak ñëpp ñi fi teew man maa ngi tudd Pël Jang Cilmaxa jiite jigéeni commune u Cilmaxa ñuy sant nag ci ndimbal li nga xam ne moom la fi commune bi def monsieur le maire dolli ko lépp lu mu am jëf na ko ci commune Cilmaxa njëkku ñoo soutenir tey lépp lu mu doon lu nekk ci Cilmaxa loxoom a nga ca musta bàyyi dara Cilmaxa mu paralysé rawatina nag lii nga xam ne yàlla suñu borom moo ko indi àdduna bépp daj ko yàlla indil nu ko mu metti lool wër lu jaboot ndax lu metti lu ne jaboot lay wër wër lu ku néew doole lu metti lu ne ko amul doole lay wër kon nun ñii lay wër nun ñii ne ci àll bii yorunu dara ñun bari ci cilmaxa di jigéen ñoo xam ne seeni jëkkër daa dee ñii di ñoo xam ne seen jëkkër a nga fa waaye jigéen ñaa yore kër ga ndax góor moom góor fii moom la mën a lijjanti bariwut bàyyi la man ca toole bu tool yi jeexee noppi na ci nun noo nekk ci marché bii noo ngi mën a tunoo xëy mun noo gont lii la yàlla indi di sant nag gendarme yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax ñoom suba gu nekk ñu ngi ci marché bi man mii nekk ci marché bi délégué di délégué marché ba maa ñoom ak dóor dàqeeg jigéen ñi wax ji takk leen i mat raxasu leen téye leen gone yi loolu lépp dañ koy def ñu ngi nii doog a jógee marché léegi dëkki àll yi fu nekk la ñuy dem man sama buntu kër guddi gu nekk danañ fa ak ñetti yoon te ci ay dëkk la ñuy jóge ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nag képp ku fi teew di ñaan ay dërësi la lu man ren diwén yàlla na man lu ko raw te yàlla na yàlla ak yonti yàlla Muhammad tàqaleeg mbas mi ñun ñëpp kuy julli te ku julli yàlla na ko fi yàlla jëlee ci barke yonante bi jërë gi fii ci commune bu Thilmakha euh, sur invitation maire maire moo ñu invité ak conseil municipal yi mais tamit ak borom dëkk mu chef de village yi ci réception bi ak loo xam ne euh, dañu ko war jox mu population bi depuis président woote pour que euh, ñëpp mu taxaw ñëpp mu jàppale ñoo xam ne am nañu dimbale ñoo xam ne euh, euh, ay néew doole lañu commune bu Thilmakha desul ci ginnaaw tey gis ngeen sama ginnaaw mun nañu wax commune de Thilmakha def nañu seen réaménagement budgétaire ba génnee fukki million ak juróom ñu uti ci. juróom fukk ton ak ak euh, ñeent yoo xam ne euh, maire tamit ci poosam lamb poosam génnee euh, lu dem ci trent tonnes mu teg ko ci table bu ñu ko xayma mu doon quatre-vingt-quatre tonnes yoo xam ne dinañ ko jég dinañ ko jox askan bi pour que ñu mën a ci jàpp ci mooy période boo xam ne ñëpp xam nañ ko heure bi moom xaw na metti lii nag day fekk ci woote boo xam ne moom la président woote pour que ñu am jàppale ñoo xam ne ñu ngi dans des situations de de difficulté je que loolu loolu moo tax tey ñu ñëwaat santaat maire santaat équipe municipale bi mais gën a ñaax population bi parce que ñëpp xam nañ ko bés bu ne dañuy wax ay cas communautaire ay cas communautaire bu amee nit ñi war nañu gën a fagaru gën a sensibiliser yokkaat suñu taxawaay bi pour que euh, cas communautaire bi mu arrêté wu pour que loolu mu arrêté il faut que nit ñi toog il faut que nit ñi adopté ay mesures ba d'hygiène il faut que nit ñi euh, adopté des gestes ma barrière loolu moo tax dem ak digg bi ñu wàññi ko de telle sorte que ñu ñëpp bu ñëpp toogee fii ba ay fan wala ay semaine dinañ ci gis euh, résultat bi fii au moins sant encore maire bi ci programme de sensibilisation bi Euh, produits yoo xam ne jënd nañ ko jox ko hôpitaux yi mais aussi accompagner mooy daara yi ak case santé yi mais aussi féliciter liggéey boo xam ne force de sécurité ak défense yi ñu koy def parce que ñëpp xam nañ ko suñu commune bi buntu la ak neuf autres communes muy Touba muy Louga muy leneen ak leneen donc ce qui fait que il faut que nit bàyyi ci xel gën a bàyyi xel ci dem ak dikk bi loo xam ne daal mënul ñàkk mun nañ ko dem mais loo xam ne mun nañu bañ a dem nañu toog parce que cas communautaire yi bëri nañu comme que cas communautaire yi bëri nañu tey la nit ñu war a gën taxaw tey la nit ñu war a gën a fagaru tey la nit ñu war a gën a sensibiliser tey la nit ñu war a gën jël suñu ay responsabilité je pense que euh, message baa ngi dem sensibilisation ñu ngi ci kawam je pense que aussi mooy population bi ñoo war a def benn ni ñu wax euh, changement de comportement pour que ñu mun a euh, attendre objectif boo xam ne moom la mu président bi teg fii mooy ñu xeex mu jàngoro ñu sant effectivement ñu ngi comme nu ma ko waxee bu ma leen remercier mooy ñu ngi def seen liggéey seen liggéey mooy lan bépp instruction boo xam ne ministre de l'intérieur jël na ko wala ministre des transport mu jël na ko wala seen hiérarchie bi mooy instruction bi jox na leen ko ñu ngi koy appliquer sur le terrain parce que gis ngeen am nañ fi benn marché hebdomadaire donc nit ñi ñu ngi ci couvre-feu bi ñu ngi euh, euh, def seen patrouille yi ñu ngi euh, gën xoolaat oto yi oto yi dem ak dikk bi je pense que loolu yëpp ñu ngi ci je pense que léegi la ñu ñi ku nekk nag nga war a doon sa gendarme bopp boo doonee sa gendarme bopp je pense que mun nañu atteindre objectif boo xam ne mooy ñu fexe ba mbas moo xam ne moo fi moo fi dugg ñu génne ko su mu suñu réew. je suis Sayar Daw secrétaire de la commune de Thilmakha. Euh, aujourd'hui nous nous réunissons ici dans le grand magasin de Thilmakha pour procéder à la distribution du riz acheté par la commune dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 mais aussi une autre partie du riz achetée par le maire Alioune Aïdara Sylla de sa propre poche. Parce que quand le président de la République a déclenché euh, la lutte contre le Covid-19, nous avons eu notification de la quantité de denrées qui devraient venir à Thilmakha. Nous avons constaté que ça ne pouvait pas couvrir tous les ménages de la commune. Le maire a demandé au conseil de faire un raménagement budgétaire pour pouvoir inclure plus de 15 millions pour l'achat de 54 tonnes de riz. Ensuite, il est revenu pour apporter de sa propre poche 30 tonnes pour une valeur pratiquement de 9 millions de francs CFA. Et euh, cette lutte-là, c'est une lutte que doit mener tout le monde. Parce que la maladie, on ne sait, jamais, on ne sait pas encore là où ça va aboutir. C'est pourquoi le maire remercie très, très chaleureusement, très sincèrement tous les conseils municipaux qui ont accepté de faire ce réaménagement budgétaire Mais les populations aussi remercient le maire parce que il, il, il est au devant de, de, de, la lutte. Il a, on, a, on a commencé d'abord par distribuer des, des kits d'hygiène à la population. On a fait une grande sensibilisation. Dans tous les villages, on a donné des produits d'hygiène dans les daras. Et les populations se sont appropriées de cette lutte à, à notre grande satisfaction. Vraiment, c'était, c'était en bref euh, ce, qu'on, ce qu'on voulait dire. Nous sommes 64 villages au niveau de Tilmacha et plus de presque 2000 ménages. Avec les bourses de sécurité familiale, nous avons pratiquement 700 ménages. Vous imaginez le gap qu'il y a. C'est pourquoi la commune et le maire ont mis la main à la poche pour venir en appoint euh, à, à l'appui de l'État. initié par le chef de l'État. Vous travaillez de concert avec la gendarmerie de Thielmokha. Est-ce que le couvre-feu est bien respecté dans cette localité? Oui, la gendarmerie, bon, nous, nous, nous, nous, nous, nous leur tirons un, un grand chapeau. Parce que couvrir 63 villages, c'est pas facile. Et on est en frontière avec neuf autres communes. Vous, vous, vous imaginez très, très facilement euh, les difficultés à gérer cette crise. Mais tout le temps, ils sont sur le terrain. Tout le temps, le commandant et ses équipes tout le temps, il sont sur le terrain. Donc nous sommes à, à la commune de Tilmaha, sur invitation du maire euh, Aïdara Silla et le conseil municipal, pour mettre à la disposition de la population de Tilmaha cette importante quantité de riz. Et ça répond une fois de plus à, à l'appel du chef de l'État, qui depuis le 2 a demandé aux Sénégalais de, de, de plus d'assistance, plus d'accompagnement. Et cette assistance je pense que le maire l'a entendu. C'est pourquoi il a instruit le municipal qui ont fait un réaménagement budgétaire pour mettre sur la table 15 millions qui à 54 tonnes de riz, plus contribution personnelle qui est à 9 millions, Aujourd'hui, la commune de Tilmaha est en train de mettre à la disposition des populations 84 tonnes. Je pense que c'est important pour accompagner euh, déjà ce que le président de la République est en train de faire dans le plan de riposte. Et les vingt quatre tonnes plus ce que euh, le ministère du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale va mettre à la disposition des populations. Et je pense que ça peut soulager une fois de plus et eh, les populations en ces moments de, de confinement. Et c'est pour vous dire une fois de plus que, aussi que remercier l'équipe municipale et l'ensemble des chefs de village, aussi les forces de sécurité et de défense, qui n'ont ménagé aucun effort dans la sensibilisation, dans l'accompagnement, mais aussi dans l'application des mesures. qui ont été euh, pris par le ministre de l'Intérieur, aussi bien par le ministre, son homologue, le ministre des Transports. je pense que ces mesures-là sont effectives. Maintenant, comme je l'ai dit, comme que nous avons une prolifération de cas communautaires, c'est l'occasion encore d'insister davantage dans la sensibilisation. Dans la sensibilisation, mais aussi dans ce qu'on appelle la surveillance. Euh, par rapport à la position géographique de la commune de Tilmaha, qui est une porte ouverte à neuf communes, je pense que les populations devront plus, davantage, insister sur la, sur la sensibilisation, mais aussi euh, adopter les gestes les que euh, par rapport avec tous ces éléments, je pense qu'on peut une fois de plus espérer vaincre la pandémie qui est le Covid-19.